Euh, mbokk yi dañuy seetlu ne arwaax yi yëpp maase waaye yàlla bëgguñu ñu joxante cër moo tax kenn ku nekk mu jaarale la ci way jur ndax keroog bi mu bindee arwaax yi fa mu leen doon pesé bi mu leen pesé ba noppi dafa tàllal yëpp ne alastu bi rabbikum ñu ne ballee ci ballee jooja nag ñëpp ci bokk maase yàlla def ne arwaax yi wannante leen benn bu nekk bi nga wannoon da nga ko génne kenn ku nekk bi la wan noon mooy sa way jur bi nga wan noon yaay yaay doom yaay yaay way loolu lépp mi ngi am ci sottandiku suñu borom kon bëgg gum bëgg ñu joxante cër moo tax kenn ku nekk mu jaarale la ci way jur yàlla wax nag ci ak way jur ne wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan yàlla ne man seen borom subhaanahu wa taala farataal naa ci yéen ne na ngeen ma jaamu gannaaw bi ngeen ma jaamoo ba noppi seen diggante ñaari waajur yi nangeen ko rafetal rafetal gi nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem fi mu tàmbalee mooy bi nga demee ba yëg ne majeur nga am nga doole ju la yàlla roof rocc ko ci ñoom fala sa taxawu ci ñoom war a commencé moo tax yàlla wax ne imma yabluganna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci màggam nee na bu fekkante ne say wéjur dundandoo nga ak ñoom ba ñu xëy màggat tële nee na bul topp xew-xewi jamono ne góor gi dafa bari wax walla meer bi dafa naqari deret bu ñu waxee nga gëdd mbaa nga sànni ah mbokk yi loolu doxul yàlla santaane wu ko ci benn wéyjur ak doom li mu ca santaane mooy lu rafet nee na kàddu uffin nga xam ne ñaari xaraf la muy alif ak faa nee na sax bu ko génn ci sa gémmiñ jëme ko ci ñoom maire bi dafa bari wax ëf góor gi dafa bari wax ëf nee na baatu ëf boobu sax sunu borom bi subhaanahu wa taala daf la ko tere moo tax yàlla wax ni ngëneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur kenn xamul ni mu toll moo tax bi mu joxee baaraam joxoñee baaraam euh, boppam ne nañu ko jaamu ba noppi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nin koy jaamu wayjur képp la yàlla jël placé ko ci diggante bi kon mbokk la mu ñu sant mooy waqul lahuma qawlan kariman na ngay wax ak ñoom wax ju teey wax joo xam ne ku ko dégg na ne ne ah wax dëgg yàlla kii de jox na ay waajuram respet ba ca war wala orma ja ca war moo tax mu wax ne wax waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ah, na nga wàcce say mbagg bul gis sa bopp ci wërsëg bul gis sa bopp ci doole bul gis sa bopp ci xam-xam bul gis sa bopp ci man-man ba tax nga jàpp ne yaa leen noo mën a am ñoom la ndax bu buñ la toppatoowul woon doo doon dara kon na nga wàcce sa bopp ci ñoom toroxlu ci seen kanam te foo toll di leen ñaanal yërmaande yàlla ci bu ñuy dund ak buñ faatoo loolu la yàlla santaane moo tax boo demee ca biir alquran sa am na foo xam ne dafay wax ne anishkur li wali walidayka wa ilayal masir na nga ma sant man sa borom subhaanahu wa taala soo ma santee ba noppi na nga sant sa ñaari wayjur te nga xam ne ci man ngay mujj si way jur ak doom nag dañuy wax ne leb loon leb leen la ak fayonte li nga lebal sa way jur ala kulli alin yàlla dana la xéwale doom ji la ko fay moo xam su baaxee wala mu bon moo tax yàlla wax ne nañu màggal sunu ñaari way jur sunu kem kàttan yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne kenn gënta ñàkk sens koo xam ne dundandoo na ak ñaari way juram ba xëy denc leen ci biir suuf te làqul seen ngërëm moo kii dund ci biir weeru koor ba weeru koor wi jeex te fexewul ba yàlla jéggal ko ci ay bàkkaaram daanaka ñoom ñaar sax ñoo xaw a yam àtte moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bis mu yéeg ci min minbar bi di xutba bi muy yéeg tànk bu mu yëkkati ne amin tànk bu mu yëkkati na amin tànk bu yëkkati na amin bi ko bi mu paree ñu laaj ko ne ko lu waral sa amin ji nga doon wax mu ne Jibril dafa dikk di ma solo ci koo xam ne dafa dëng ay waajuram yàlla na torox ma naan amin koo xam ne dafay naan sàngara yàlla na torox ma ne amin koo xam ne dafa dog ak bokk yàlla na torox ma ne amin moo tax mbokk yi yooyu dafa jara xool parce que bokk na ci yiwu weeru koor ak màgg gu mu màgg yàlla ñu ci defal bis boo xam ne dañuy wax ne wecc na junniy weer junniy weer suñ ko calculer mooy quatre-vingt-trois ans yu teg six mois yoo xam ne da nga ko jaamu yàlla yàlla nangul la ko am na ci biir koor gi génn guddi goo xam ne moo koy wecc guddi googu li muy rëy rëy li ci yàlla di xool xool jaam ñi bëtu yërmande yàlla def ci seppi ñett yonent bee ko wax yonent bi nee na aaqul li walidayhi wa mutminul xamri ñooñu duñ ci bokk ak koo xam ne xaati ruxum la mooy koo xam ne dafa dog ak bokk kon nañu ko wattandiku bu baax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alaa unabbiukum bi akbaril kabair illa ashirku billahi wa uququl walidayni Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ndax duma leen wax bàkkaar yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci bàkkaar yi ñu ne ko yow mi yàlla bind waxal mu ne mooy koo xam ne da nga sa ñaari wayjur ak koo xam ne da ngaa bokkaale ak yàlla nee na kenn gënta rëy luñ def moo tax mbokk yi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne laa yadxulul janna aaqun li walidayhi wala mannaanun wala mudminul xamr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne da noonu sa ñaari wayjur dënga leen doo def ak ñoom njub Euh, koo xam ne da nga taxoo sàngara foo toll di ko naan ak koo xam ne da ngaa bokk ci ñiy bokkaale yàlla mbokk yi doo dugg aljanna mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci màgg gu wëy jur màgg nee na bàkkaar bu doom aadama def yàlla mën na ko supporter muñal ko ko ba yowmal am moo atte ko ca ba mu des ki dëngee ay wëy juram kooku yàlla du ko xaare mukk da koy gaawee am mbugalam fii ci àddina mbokk yi nañu rafetal suñu diggante ak suñuy wëy jur Euh, bu dee ci jur yu jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog benn bés am ku ñëw ne ko sama jur day dama lay laaj nan laay dundee ak ñoom ma di la laaj sama yaay ak sama baay kan laa ciy dimbali yonent bi ne ko sa yaay mu laajaat mu ne ko sa yaay mu laajaat mu ne ko sa yaay mu ñeenteel mu ne ko sa baay moo tax yonent bi nee na al waladu min kasbi abihi doom ju nekk euh, fàggetu fàggitu juram la kon kenn ku nekk loo am da euh, ngay seet sax boo demee ci xiyaasu atte bu ñuy atte waajur am na sañ-sañu fekk doomam liggéey alal teg ko mu jël ko te du ko tàggu waaye doom amul sañ-sañu jël alali waajuram lu ëpp loo xam ne dañ koy tuddee rubu dinaar su ko jëlee dafa am lu sharia di teg ci loxoom muy pen boo xam ne dañ koy dagg loxoom kon mbokk yi liñ ciy jànge rek mooy doom ju nekk ci sa fàgguteefu waajur nga te waajur yi jigéen ñi jar nañoo yërëm ndax dañuy wax ne koo xam ne bis bi ngay juddu yaa tax ñu wuññi ko ba mu set wecc ci moromam jàkkaarloog awraam di ko xool mbokk yi kooku jar nay bàyyi xel parce que bu néewee doole amatul fenn fu mu sës te léegoo-leeg sax nga gis sopp gu wuy jur sopp doomam egg na ci su ko meree sax da ngay dégg baat ba mu koy wax mooy suma faatoo nga torox kon lim lay mere mere daggal na boppam cër ci déggi jeggi la yow kon mbokk yi nañu joxaat wuy jur yi cër bi ñu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dañul di ñu xiirtal ci wuy jur boo seetee li tax ñu ne yonent bi maxsuum la gis nga ni yàlla programme dundam mu siqut ak ay waajuram dund goo xam ne sax dana gàddul ci ñoom àq joo xam ne dana dana toq ci diggante ak ñoom moo tax keroog bi nga xamee ne dem na ba yàlla yónni ko dem na ba ca bàmmeelu ay waajuram ñaan boromam mu fëgg ko mu jóg ñu tuub dugg ci lislaam delluwaat ci seeni bàmmeel bari na téere yoo xam ne indi nañu riwaaye boobu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nee na nañu rafetal ci sunu diggante sunu wayjur yonent yàlla Moussa salaam dafa am benn bés mu laaj yàlla ne ko dama bëggoon nga wan ma sama dëkkaale ca aljanna yàlla ne ko danaa la ko wan bu subaa demal ca marché sàngam yonent yàlla muusaa xëy dem ca marché ba bi mu eggee yàlla ne ko am na fa benn jaaykatu yàpp boo demee kooku mooy sa dëkkaale ca aljanna yonent yàlla Moussa li ko jaaxal mooy waa ji du yonant du waliyu du borom xam-xam mais nan la mën a def ba dëkk aljanna te deewul loolu nekkoon problème bu rëy ci Moussa bi mu ñëwee ci marché bi toog di ko xool jël ruusitu yàpp yi nga xam ne moo gën a nooy yóbbu ko ca kër ga wal ko ba mu mokk rupp mu so euh, togg ko ba mu ñor euh, ñëw yëkkati yaay ji ndeysaan yaay jaa ngi mage mu uuf ko di coppati ci yàpp wi di ko jox muy muy sex di jël ci ñeex mi di ko jox muy naan waaye mu gis ne yaay ji bu lekkee tuuti dina ubale tuñ yi tuuti di ko ñaanal yeneen yonent yàlla Moussa bàyyi ko ba mu noppi mu ñëw ne ko yow ndeke yaay sama dëkkaale ci aljanna ci sabu bu fonk goo fonk sa waajur ti yàlla Suleymaan alayhi salaam euh, tukki na benn bés ba ñëw tiim océan bi gis ci biir benn aquarium boo xam ne leer ga mu àndal kenn xamul nu mu toll mu ñaan ne jinne yi dama bëggoon ngeen dugg ci biir géej gi génneel ma aquarium bi bi ñu génnee aquarium bi teg ko aquarium bi xar benn xale génn ci yeneen yonent yàlla Suleymaan xale bi yéem ko mu ne ko ndax jinne nga xale bi ne ko déedéet mu ne ko ndax waliyu nga mu ne ko déedéet mu ko ndax yonantu nga mu ne ko déedéet mu ko kon lan nga xale bi ne ko man day Euh, ci li ma amee li seetlu naa ne sama yaay dafa mage woon ba mënatul dara ma di def heure bu bëggee génn ma boot ko di doxantu ak moom waaye saa yu ma ko bootee li ma daan yëg ci li may ñaanal bokk na ca mooy yàlla sama doom ji bu faatoo ruuxam na nga ko def foo xam ne doo fa def benn ruux loolu sama yaay daan na ko ñaan fu mu toll ca laa faatoo yàlla yëkkati sama ruux xar aquarium bi dugal ko ci kaste ko def ko ci biir océan bi ci laa amee loola kon mbokk yi dañ ciy yégée ne fonk way jur lu am solo la yàlla nañu yàlla tàggat ba nu fonk suñu way jur yàlla nañu yàlla dëppale ak ñoom yàlla bu ñu ñàkk seen ngërëm ci seen dund ak seen faatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala